ndax waxtu wi dootul waxtu ay wax ci waxtu jëf lañu toll ndax lees mën a théoriser théoriser ba am équipe def say qualification ba qualifier coupe du monde ba ñu jox la sa programme ba nga dugg ci terrain bi wax ji danga koy wàññi jëf moo fi des te it ñoo xam ni lañ ñu santoon aussi mooy jëf alxuraan li muy gudd gudd gudd boo ko toppee ba ci des ndigal loolu dong la ñu yàlla jox mooy ixnaloo jëf leen jëf jëf leen alors kon su fekkee toll nañ ci situation bi ñu toll dafay am solo euh, ci ñu gàttal wax yi waxtaan bi nag ci ñaari poñ rek la jëm benn poñ bu njëkk bi mooy la responsabilité du croyant nit ki nga xamni gëm na gëm nak dafa am ay charge du soxla sax ma ci delsi ndax yaakar na ni ñepp xam nañ ko euh, képp ko xamni gëm nga yalla gëm nga malaaka yi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufariqu bayna ahadin min rusulihi waxaanu samihna wa atana xafaan rabbana ilaykum masir ila axiri ila axiri ayat yow ba ba yecca tege tege ci kon ku gëm yàlla gëm malaaka yi muy am na yeneen créature ci yeneen i dimension gëm téere yi waxul téere bi téere yi téere yi nga xam ni yàlla moo ko wàcce gëm yonentam yi ndaw yi nga xam ne yónni na leen te doo def benn benn benn teqale benn par loo doo ko def ci seen biir ndax ndawi yàlla lañ dangay màndu ci ñoom ñëpp te gëm leen euh, loolu nag wa anna la si jaax bi sayyidina muhammadun xaqun wa anna aljanata xaqun wa anna naara xaqun wa anna siraata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabasu man fi kooku ko def sa ngëm mat na sa njulit wér na léegi ki gëm ñun suñu gëmee gëm ni téere boobu téere bi nga xam ne moo mujj wàcc dafa tënk wane ni yàlla moo yebaloon ñu njëkk na moo wàcce woon téere yu njëkk yi tey jii moo ñëw di matal loolu lépp seen synthèse mboole seen kàddoom yépp nekk ci biir téere bi muy téere bi mat téere boobu ñu jàng ci borom bi xamal ñu ne ñun ñooy ki ko wuutu ci kaw suuf nit nit moy wutu yàlla ci kaw suuf bi mu amee projet bi garal nako ko malaaka yi sax ni len damay wàcce doomu adama ci kaw suuf xam nga yàlla julli wul woru kon nan lañuy wuto yàlla ci kaw suuf débat la boo xam war nañ ko tek ci pénc bi wutu yàlla ci kaw suuf responsabilité la mu xamal ñu ni na ngeen fexe it ba bu len bu nu yàq suuf ولا تفسدوا في الأرض bahda إصلاحها fexe leen ba suuf bu mu yàqu kon loolu dañu ci avertir nit ñi war ko def war ko bàyyi xel xam ni kon seetaan yàq suuf ak mooy yàlla la ñooñu nga xam ne nag ñoom la yàlla wàcce ci kaw suuf borom bi xamal ñu ni yéen kat ñaari kuréel la yéen doomu aadama nga xam ne yéen a may wutu da ngeen di séddoo ñaari kuréel ñii dañoo gëm ñiy weddi ñi gëm nag ñoo ma tax di wax ñi gëm te tudd naa ko sànq ci sama njëlbéenu wax ñi gëm nga xam ni gëm nañ yàlla gëm nañ bis penc ba dañu am responsabilité ci kaw suuf borom bi xamal ñu ni yéen ñi gëm benn kuréel bi weddi du ñu denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen mortat ngeen mortat lii alxuraan a ko wax duñ denc di leen xeex ba buñu ko mané ñom dañuy génn ci diine ñu murtad légui mbokk yi damay laaj damay laaj rek kon wax yàlla joju nañ lañ ko def est-ce que kurel bi weddi won dañ ñoo bayé xex duñ denc ci leen xex lañ wax est-ce que dañ ñoo bàyyee xeex déedéet bàyyiwuñ ñoo xex de kon duñ denc ci duñ di leen xex wala bokk lañ bëggoon ci duñ day ci ñun dañ koo am mooy dañ ñoo génn ci wala iyaasu billaah wala iyaasu billaah muy baat boobu mu murtad wax yàlla la kon ou bien ñaari yëf a mën a nekk ou bien li yàlla wax mi ngi wéy ba tey ñoom ñoo ngi ñuy xeex ñoo xamul ni ñuy xeexe ñoo xamul fi ñuy jaar wa illa lañ bëggoon ci ñun am nañ ko alors lu mel noonu nag su amee euh, gis naa sax ay benn intervention bu ma defoon fële ci sans limite yaakaar na nit ñi am luñ ci dagg ma préciser bu baax it ni li ci nit ñi dagg ña ko dagg ñoom ñoom la engagé waaye la ma doon wax lu gudd gudd guddu la kuy déglu da ngay dem déglu li ma wax lépp loola nag li ma ci dolliwaat lu tuuti rek la mooy diiney lislaam kenn moomu ko kenn jagoowu ko ñun ñëpp dañ koo bokk Seydina Ababacar siddiq bi mu ñëwee di dugg ci lislaam yonent bi daf koo xamal ni ko li ma ci war moo la ci war kon yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni mooy kilifa gu mag gi wax na àndandoom bii di saxaaba bi ni ko li ma war moo la war kon dafa mel ni képp ku nekk ci diine lislaam rek ñun ñëpp ñoo ci bokk doon am doon ay responsable am ci responsabilité am ci masuuliya léegi nag responsabilité yi mën naa wuute loolu yàlla moo ko dogal responsabilité yi mën naa wuute waaye képp koo xam ne yaa ngi ci diine lislaam am nga ci responsabilité képp koo xam ne yaa ngi ci diine catholique am nga ci responsabilité képp koo xam ne yaa ngi ci yeneen diine am nga ci responsabilité dès l'instant que nangu nga la la cee dugal nga dugg ci rek am nga responsabilité ci loolu responsabilité nag mën naa rëy mën naa tuuti certes mën naa bañ a tolloo léegi kon man li ma doon wax lan la te dama bëgg nit ñi xam ni man su fekkente ni réew mi am na fi kuy néewal doole kilifteef kooku ku ma xam nga koy def sa kaw laa jëm barki dem ba wax naa ko ci sunu Sunugal 24 kilifteef dama koo lëkkale sax ak ngëm yàlla ndax yàlla moomu ñuy gëm nga xam ni mooy kenn allahu waliyu gis nga ak nim mu ay tour ak yi melo lan moo tax mu jëf fandikoo ginaaw allah rek mu ni wali moy kilifa wali lazina amano yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur moy kilifa ñi nga xamni ne dañoo gëm nga leen genn ci lëndëm yóbbu leen ci ak leer lolu war nañu laaj lan moo tax mu lëkkale ko kilifteef googu nag wax naa ko aussi ni moy li stabiliser Sénégal gi personne naa intéret nga xam ne bu ñu demoon ba kenn ci amatul intérêt sax amuñu intéret ci néewal ko doole mais apparemment au Sénégal y a des gens yoo xam ni ku ci nekk ak la la tax a jóg waaye y a ces yoo xam nii tamit dafa mel ni ci parparloo la ñu nekk ba finalement loolu dañoo gumba tëx lu ba booy def lu baax seen yoon nekku ci booy wax lu baax seen yoon nekku ci waxtu wu ci nekk ñoo ngi xool nan lañ la daaneele nan lañ la jamee nan lañ la kii loolu nag ma wax leen ni man très franchement yëngalu ma maa ngi met maa ngi maa ngi am naqar lool sax ak lu ma metti ci ñi nga xam ne ñoo ngi jóg ndeysaan jël seen temps ni dañ may défendre rek dañuy wane ay ci kii mooy Ababacar Mbuub ak wax dëgg yàlla yàlla na yàlla fay leen waaye loolu sax jaru ko jaru tax jaru ko mooy man tànn naa des ak yàlla loolu laa tànn des ak yàlla mi nga xam ni ba ma amul moo ma amal moo may rey moo may dekkal taxawal ma ci benn bis jëmee fa coobareem jëm di seede ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy kii yàlla yónni ci ñëpp cheikhul xadim di sama wasila te li aju ci moom laajuma ko kenn la ma ca war a xam-xam naa ko sama royukaay kenn la mooy Cheikh Abdoul Ahad lu neex waaye na wax lu neex san ma gis nga loolu ça me fout au nord lu nit di commenter rek lu mu commenter noonu lu nit di wax ak lu mu waxul c'est le cadet de mes yàlla xam na ko ñi ma ci ñeewante rek mooy ñi ci perte seen temps nday ndeysaan sax daanaka perte temps laa koy tudde ndax xam naa ni ay nit yu baax lañu te mënoon nañoo dem yi defi leneen waaye ñoo ngi jël seen ay minutes di di ñëw ci réseaux sociaux yi di am lu ñuy mel ni dañ ma ci ci défendre te jaru ko jaru ko man nañ ma bàyyeeg sama borom bi ma bind rek. y a de choses yoo xam ne si da nga dul comprendre en réalité c'est quoi le problème c'est quoi le problème mbooleem d'abord ñaari précision mooy def mbooleem kilifa diine gu nekk ci biir réew mi amante naa ak yow amante ak sa njaboot su ma la soxlaa du ma jaar ci kenn xam naa fa may jaar su ma la soxlaa xam naa la fa may jaar wax ak yow kon bu fekkee ñoom laa doon waxal <laughs> ku ci nekk damay dem wax ak yow la may wax ak yow ndax amul kenn ku ma ci ubal sa bunt mboolem kilifa diine gu nekk ci biir réew bi rek amul alors loolu kon ñu laf ko nele mais li ma doon wax ma bëgg ci attirer seen attention muy lu am solo nañ ko bàyyi xel Sénégal gi première communication bi ma njëkk def ci événement yi xew ndax man maa ngi soog a dugg ci combat bi man li ma doon japp sax moy nit ñi ni mais Babacar Mboup lan moko do war ci combat bi ndax mom naka jekk dafa décrier la euh, euh, la république dafa ni c'est une république maçonnique dafa contre euh, constitution bi daf koy daf koy tek baram, nan telle et telle chose du une constitution sénégalaise lan mo waral kon mu jog tay ni nañ respecté constitution man je pense que ni débat bi foofu la war nek effectivement parce que lu bon buñ fa naree jugé dem ci lu yées il faut nit ñi taxaw te Sénégal mi ngi ci tournant wu bëgg a ci li fi nekkone ak ñew muy ay texte ñu dem ci bànneexu kenn nit dong nga xamni moy bour di bumi ku ko neex ray ku ko neex dekkal mo koy tënag ku ko neex tej ku ko neex tij ku ko neex toroxal ku ko neex yëkkati lool on peut pas l'accepter actuellement au 20 au vingt siècle loolu ñun moñu duggal ci combat bi muy combat au principe suñu sétané mais suuf si dana xat ci ñun loolu ñun duñ ko seetaan li ma doon wax nag li taxoon may wax lay préciser rek ñëw ci appel bi parce que waxoon naa ni euh, live bi mënul gudd euh, Sénégal dañ ni nit ñi fi nekk ñëpp ñoo ko bokk képp ku yor carte d'identité ci sénégalais nga bokk ku yor kayitu juddu ku yor certificat nationalité passeport mbaa nga am fi kër sax di fay lempo comptable nga ci liñ fi taxawal lool ñu fi comptable nak ñu ni dañ koy xaajale ñaari cër manam teqale ko ci temporel ak spirituel c'est-à-dire loolu laa wax ni moy problème xam nga li tax mu doon problème yi ñuy wax ak yi aksi yépp ay njuréef la ay meññet la manam ay conséquences la ay effet la mais sax du problème bi mais la cause du problème la source de tous nos malheurs est à chercher ci ñaari mbir yi may wax ni benn bi mooy boo xoolee ginnaaw nit yàlla daf ko wàcce ci kaw suuf pour mu wuutu ko ndax yàlla li mu ñu wàcceel ñun diine lislaam dafa manqué laaj la bu ma leen di laaj est-ce que diine ji dafa manqué ndax yàlla mi nga xam ni moom mooy ku mat ki nit nag dafa matati mais yàlla mooy ku mat ki tànnal ñu diine joo xam ne nee na mooy diine jee mat ba noppi ñu ne kon dafa mel ni ñun ci suñu gisin ak suñu déggin Il y lu ci manqué qui xamné wara dem problème la xolal Sénégal li fi nek ci réew ñu ñun ñëpp li fi ëpp ay way ngëm lañu ay ñu de musulmans nek na fi wala bu leen nexé sax ma ko wala bu de musulmans 80% de musulmans kon gëm nañ de musulmans c'est la majorité gëm nañ bi sallallahu c'est la majorité gëm nañu ni l'islam mooy diine yi dëgg c'est la majorité te gëm nañ ni lislaam diine ju mat sëkk la gëm nañ ni alxuraan lépp dikk na ci waaye léegi ma laaj quatre pour cent yooyu nga xam ne gëm nañ yàlla gëm bis penc te ci seen tour ñoom quatre pour cent yooyu ñuy majorité te ma fàttali on est en démocratie quatre-vingt pour cent yooyu ci seen tour la ñu daganale ne waxi yàlla am na lu ko tiim ci réew mi kon wa kalimatullahi al xulya dañ koy génne ci alxuraan wala bok ñun suñu alcorane senegal nañ ko ci génne wa kalimatullah hiya al-ulya nañ ko ci génne kàddug yalla timul timul timul lepp fi ci alcorane fi ci senegal plutôt li ma lay wax ni c'est constitutionnel te li ko waral moy ñun 80 de sénégalais ñun ñoo seetaan te waxoon naa la ku dugg ci biir l'islam rek kilifa nga ci am nga ci responsabilité responsabilité yi mo tolloo kon képp ku dugg ci l'islam rek am nga responsabilité ci li man li la doon wax li wax ça nous interpelle tous pourquoi kenn ku ci nek bëgg sa responsabilité ni da am kilifa gu wax wala nang man fi waxal dem wax ak ñu ni ci Sénégal ma lay wax c'est constitutionnel bo démé ci préambule bi li fi ci la suñu la déclaration universelle des droits de l'homme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 te li ci bizarre 1789 mbokk yi bàyyi leen xel li may wax 1789 soo ko jëlee Égypte Égypte wa taaxut soo ko additionné 1789 la lay jox ku mu neex calculer ko te dégg ngeen lillazina yu'minuna bil jibti wa taaxut ñi gëm Égypte wa taaxut additionné leen Égypte wa taaxut ça vous donne 1789 loolu la ñu référence, référence ñun ci une constitution dàq alxuraan té loolu ça a été fait au nom du peuple sénégalais pour le compte du peuple sénégalais ce peuple composé majoritairement de croyants de musulmans de dit-on prenons 80 li cent mo ci amul responsabilité li bu démé ci kanamu yalla lan lañ koy wax ñu ni ñu yow yalla sa kàddu gi amna na lu ko tiim ci biir réew mi wala dañuy ragal nit yalla ça c'est un problème. té man suma koy wax sama bop tax may wax parce que man sama responsabilité dafa engagé wu yamul ci lool xolal dañoo daganal njaaloo ci réew mi dañoo daganal njaaloo jigen ju bëgg jaay sa bop dañ nan la kay ci turu sénégalais ñu jox la keuyit wuy mandargal lool té képp kuy sénégalais na 80 pour yi ma wax ni bon comprendre ngeen li tax ma wax 80 pour quoi dama wañi ki bi pourcentage bi 80 pour de sénégalais yi nga xamni nenañ ay musulman lañu wala lu ko ci seen tur la ñu daganale yàlla ni bu leen jege njaaloo ñu ni ko yàlla li ngay wax du am fii ci Sénégal ñun dañuy daganal njaaloo loi la def nañ ko ci biir Sénégal bi te li tax mu am mooy ay politique ñoo ko def kon suñu leen seetaanee ñu def ñu lu mel nii c'est parce que ñun responsable lañ ci aussi parce que ñoom faluñu seen bopp ñun ñoo leen fal parce que ñoom joxuñu seen bopp pouvoir bi ñun ñoo leen ko jox pour pourquoi ñu bëgg a daw debaa bi

alors comme <clears throat> buñu ñu les ñi di jaay seen bop ci réew mi jox leen ay carte au nom du peuple sénégalais composé majoritairement de musulmans ce peuple sénégalais là jigen ñi buñu ñu seen bop ba at mi jeex ñu jël seen dem fay ko ñu jox ko nit ñi ñukoy muy muy riba muy alalu alal ju ñu ni lool ñun duñ ci wax mi askan wi ni ñom ñoo bayé ñi nga fi ay wala euh, euh, fatiha yu kenn xamul lañuy wax mais parce que ñom ñoy légiférer xolal niñ dagale len non lañ carte ci réew mi non lañ nan sangara lu ci ne def ko au nom du peuple sénégalais def ko ci askan dox ci Sénégal gi responsabilité engagé parce que tout simplement ñun dañoo wan politique kon naka la a argumentaire bu may dégg bu woyof boo xam ne naan non politique bi moo salte moo tax euh, nit ku baax du ci dugg lan moo tax ñu war leen a seetaan ñu bonal ko ndax ñoom dañ ëpp xam-xam wala dañ gën kilifa wala dañ ëpp engagement wala dañ ëpp lan wala dañ gën a bëgg réew mi ba tax ñoom ñu ngar dajjoo ko ba noppi di def seen tooxi doona yii ñun ñu toog seetaan ne suñu yoon nekku ci fii laa doon waxee ku ko jël nag. moom moomale ko kenn yow yaa yàpp kilifa googa yow yaa am problème sa bopp aussi ci am na loo doon reproché nit dégg ay wax nga jël ko ni ko xaaral ma moomale ko diw sàngam ne ku xam Babacar Mbuub xam ni su ma bëggoon a wax ak diw sàngam diw sàngam lay jaar ci turam mais kuy néewal doole kilifa laa wax ku mën a doon ci àdduna na nga xam ni da nga jàmmarloog man parce que man kilifteef laa gëm c'est quoi ce problème là alors xoolal ma ñu daganal lu melni l'onage créé comme une société nationale bo xamni kuy sénégalais bok nga ci ñi ko moom te pourtant nit day taxaw aljuma ci menbat dañ daan carte baxul mais imam bobu naka la mën waxé waxe né carte baxul pourtant yow yaa ngi naan carte baxul té yow sa bop lañu taxawalé société boy carte ci bir réew ñi alal ja di ay milliards léeg-léeg sax nga am aw xew ñu jox la ci léeg-léeg ñu jël ko jox ko ci ñi julli ci jàkka ji léeg-léeg ñu jël ko ci ay événement di ko ci duggal bref ci askanu sénégalais ñu jël alal jooju dugal ko ci seen i seen jiba ñun ñëpp ñu koy lekk fi mu nekk ni ñun buñ dajeeg yàlla lan lañ koy wax responsabilité ina aradna amanat ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa amalha al insana innahu kana zalaman jahula loolu nan lañ koy def kon responsabilité biñ ci am ñun ñi ñëpp lan moo tax duñ ko nangoo jël ensuite waxit au lieu wax ji mu ko mais da koy jéem a seet keneen ku mu koy moomale lan moo tax fi mu nekk nii ñu ndaw ñi toll ci suñu digg doole te xam ne lu mas a taxaw ci diine ndaw a ko taxawal jëluñ suñu responsabilité dañu bëgg nii lu ñu wax ñu ni nañ xalaati mag moo xam ni lam waroon a def ci dundam lépp def na ko nga bëgg ni non non mag ma lay waxal léegi xaaral ma jéem ko moomale mag ma pour lan ñu bëgg a yëkkati mag ñi. mais c'est regrettable ce qui est de se passer dans ce pays-là. tol ni yalla ak ni mu toll ak i waxam te sëñ Abdou Lahad Mbacke day da waxon ni ko gis mu am lu ko bis penc ba ñaara ko waral fek lu diis gan mu wayefal ko wala fek lu wayef tay mu disal ko man nak duma wayefal waxi yalla duma wayefal ay santale yalla sunu borom momu moñu xamal ni kaddu mo tim lepp senegal ñun weddi nañ ko nenañ sa kaddu tim lepp la constitution moko ko les lois ñoko tim décret bu Macky Sall sax moo tiim kàddu yàlla fii ci Sénégal bi ba noppi ngeen bëgg ñu noppiliwaale loolu pour lan yéen ay ñan pour lan ñu war a noppiliwaale loolu man bi may wax may wax pour lan ñu war a noppiwaale loolu wa kalimatullahi al hulya mu leer la ni alxuraan lenn loo ci weddi weddi nga yàlla weddi nga lépp ñun ñu taxaw ñu saxalal ñu ni am na lu féete kaw waxi yàlla ñu ne d'accord nañ ci Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer dans ce pays-là, depuis 60 ba daganal fi daganal carte la loterie nationale sénégalaise ñun ñëpp a ko c'est une loterie nationale amul ku yeewoo ci Sénégal te boko ci ñu ko nan lañ mën a te ni bu leen carte nan lañ ko mën ndaw ñi. nan lañ ko il faudrait que nit nous ñu waxante deg nan lañ ko mëna téré ci fim nek ni alors que ñun bokk nañ ci ñi moom société bi kon la responsabilité incombe à surtout ñun ñi nga xamni ñoo toll suñu digg doole di ay kilifa ci diiné am responsabilité ci diiné non ko yonent bi waxoon Seydina Ababacar Siddiq ni ko lima war ci lima war rek mo la ci war kon ñun li waron yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam nu wax fi diiné ji dañoo wara taxawu diiné ji dañoo wara taxawu réew mi aussi bref lool la lool la doon préciser. ci ñu xam ni ñun dëgg lañu séq dëgg lañu séq man nag dugal ma ci diine ja génne ma ci dugal ma ci murit ja génne ma ci yooyu véritablement waxi gone la waxi xale la xale sax yaakaar naa du wax lool ndax sama digganteeg sama borom mi nga xam ne moom moom lola képp ku cey wax joxna la rendez-vous bis penc ba bañ dajé fa joxna la rendez-vous bis penc la la wax dé bañu dajé ci kanam borom bi yëj dess nak bon c'est de n'importe quoi soxlawul sax di wax ñu dik nak ci jëmmi manifestation bi suba ñun liñu réew mi la té hubul watan al iman lenn lu ci nek man lu ma ci yëngu rek dafa am fu mako tek bëgg sa réew bokk na ci ngëm yàlla te réew mi ñu bokkoon dañ ni ginnaaw ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn ëppale wu ci sa morom dafa am askan wi nga xam ne moo moom askan wee moom il faudrait que ñuy fàttali loolu te kenn du ko fàttali ba mu ëpp askan wi moo moom nit nag sa alal yaa koy teel sa bopp la souveraineté appartient au peuple moom la njëkk a bind ci préambule constitution bi ginnaaw ñoo moom dafa am cër boo xam ni cër yu bari sax joxewuñ ko dañ koo téyel suñu bopp kan moo ñuy jiite askan yu moo koy wax dénkaane wuñ ko ci ban diir la ñuy jiite askan wee ko téyel boppam dénkaane wu lii la Macky Sall jóg ni moom danañu ko xaj ci loo xam ne tegu ko fenn constitution bi waxaat ñu ni kon bu ñu amee lu ñu naqari sañ nañu génn manifester ko dama ni moom mi jiite te waatoon ni danaa sàmmoonte ak yoon te danaa sàmm lu yoon ginnaaw moo jalgati yoon fii dama la ay déclaration sax da manifestation waratu fi am waratu fi am ndax kanu jiitaloon boo duggee ci kër fekk boroom kër ga di di di di di di taaxuraan ak a fecc wax dëgg yàlla boo fa te gone gu tàccu dangaa yab gone ga mom mo jalgati yoon mom Macky Sall ci lo xamni dara xewul dara xewul mom président institution la génn na def na discours sañ na wax ak askan as gouvernement bi ñongi d'ajé. conseil des ministres amna sax mi ngi am boobu euh assemblée nationale ñongi dajé lañ def and nañ ceeg ñu ci mais essentiel mi ngi dox amuñu ben blocage voté nañ fi ab loi tek nañ fi ab commission bo xamni mor la commission d'enquête parlementaire

kon xañ nañu suñu àq ak suñu yelleef yamu ci xotti na constitution bi yamu ci jox boppam cër boo xam ne si amu ko lii nag mbajum kanam la borom moo koy fajal boppam dès le départ laa leen wax ni gis nga problème bi buñ ci xaar conseil constitutionnel buñ ci xaar cour suprême damay bañ mu gudd mais sinon danaa taxaw sax ci conseil constitutionnel boobu dama ni buñ ci xaar la communauté internationale dama ni Sénégal ñoom moom mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam nit nag su fekkente ni dafa am lu mu moom yaafus ba nu bëgg caa jaar sàkk ba noppi jaay ko doole ba noppi tegal ko ca ak euh, euh, euh, aw saaga loolu dama ni soxlawul kenn di ko ko jooyle wala nga ko cay yërëm wala nga ko cay ñeewante askan wi ñoo war a fajal seen bopp Sénégal bi mu jëlee Coupe d'Afrique bi passé wala bële passé gis nga kenn wowul sa moroom kenn wowul sa morom nit ñee génneen spontanément te kenn deful déclaration kenn wootewul déggoo ku leen réprimer déggoo ku leen def dara parce que dañ doon savourer suñu victoire ce qui est une bonne chose waa léegi ñun fi mu ne bu ñu waree ci république dem ci fi mu ne monarchie wala dictature ak ak yelleef yañ amoon ñu salfaañe ko constitution bi ñu jalgati ko nga xam c'est une première su xisee lii jàll président sañ na heure bu ko neexate mu ni su géntee dara rek mën naa jóg daal ni loolu mooy constitution bi mooy loi bi loolu jàll te dégg ngeen Abdou Mbow ñemewut a wax lu Macky Sall jàpp andul lan la wax dañuy waxtaan après constitution moom nañ ko tege fale mais ñii c'est des criminels ñii c'est des hors la loi yàgg naa ko wax loolu nag askan yu ma ko war a fajal boppam gis nga na ñëpp génn na ñëpp jógandoo comme un seul homme na ndaw ñi génn na mag ñi génn màggatum quatre-vingt-dix ans sax na jël aw yatam sukkootu ndànk ñi mënta génn ñu daje ci seen koñ ñi nga xam ni mën nañoo ñëw nañ ñëw ñu daje place de la nation place de l'obélisque Colobane parce que loolu constitution moo ko garantir doonu jaay kii tooñ ñu ba noppi bëgg ñoo jaay doole noppi nii war ñu nii yaa ñu ëpp fulla yow li ñu seqoon contrat bi ñu seqoon violé nga ko luñ la dénkul woon jël nga ko ba noppi ni ñu léegi yéen amatu leen benn sañ-sañ te mosuñoo gis manifestation bu débordé ñu autorisé ko encadré ko mu débordé fii ci senegal xanaa peut-être euh, euh, événement 94 yi kon na Sénégalais yi jóg jël seen responsabilité gis nga lii si ça passe say boo kenn ku ci nekk xam ne ci ngàllo lañu jëm la kilifaam yee di def ca diggante ay kongo moom lay jéem a essayé fii ñoom sasu ngesoo ñoo ko digal lii ñoo ko coaché gis ngeen ko moo tax fu ne tiit na fa naan système bi kaay leen gaaw ñu waxtaan wala sinon kon ñun dana ñàkk liñ amoon il faudrait que askan wi jóg mais pacifiquement damay insister nag ci aspect boobu pacifiquement réew moo xam ne yaa ko war a defar waroo ko yàq bu kenn sànni xeer bu kenn sànni sax ab bant soyons des modèles nañu wane yar ak teggin ak bëgg suñu réew waaye nag ak fulla ak fayda dox ndànk daje ndànk delluwaat ndank bala ñu faa jógee ñu fobeere foofu yëpp rafet raxas ko mëna a delluwaat mais fi bu fi kenn di woté woté fitna ñun woté wuñu lool tay woté wuñ ko ëllëg parce que mbir mi fitna réglé wu ko d'autant plus que mom fitna la bëgg fitna la bëgg ba mën dem laq ci article 52 bu constitution bi invoquer ay pouvoir euh, exceptionnel loolu buñ ko ko may ab xeex xel moo koy def du rëll rëll du tel tel du top saw fit c'est aussi fi ko ragal amu fi nit ñi ko fi doon gis nga kula la fuuf ëpp la daraja sut la ëpp la maqaama soit dem na wala mu dem ci kasso bi te dong lañu nit suñu nañ si un million de sénégalais se mobilisent dama ni la amul même le tyran le le despote di gën yéme ci aduna amul sañ-sañ sax di la sànni aw xeer waxuma laa di la sànni lacrymogène kon mobilisation bi mi ngi aju ci ñun ak yéen askan bi yëpp bu dee football la ñëpp mobilisé wu bu dee leneen la loo xam ne da ngay génn yuuxoo dellu sa kër gisoo lu mu soppi ci sa dund ñëpp génnandoo mais pourquoi pas nit ñi duñu génn mobilisé wu ñu wane ci yar ak tegiin ci jàmm ci dal ni ñun réew mii ñoo ko moom te ñoo ngi koy rappelé xaw dana wax ngoonam det ni mom sunu surga kese la te surga dong la mën don ci rew mi mom nak teranga ju nek defal nañ ko teranga ju nek ji nañ ko lan la ko sénégalais def ba mu soxore len ni ba naru len a bàyyi réew mu dal man moma jaxal où se trouve le problème Macky Sall lan moy sa problème yow vous êtes à pratiquement moins de deux mois le 3 février nga jékki-jékki rek wëlbét daa di taxaw fo xamni invoquer ay sañ-sañ yo xamni ci si pour jaxasi rew mi indi wat fitna ci rew mi indi ak jaxaso narno noo ci impasse lan fan nga ko tek yow senegal jiwu la lii Macky Sall Macky Sall senegal jiwu la lii dem nak amna kuma ku ma il faut ngeen comprendre président parce que président dafa melni euh, euh li muy def bëgg ko mais dañ ko ëpp doole yeen da ngeen ko wara a da ngeen ko wara dimbali Macky Sall lu def moko tay man gëmu